<laughs> Malick vous avez la parole El Malick vous la parole je commence par la dernière question ci <laughs> mhm. euh, compagnon bi mu doon wax ak taxaw passé taxaw dañu def euh, alliance ci locales yi ak ci législatives yi avant loolu dañu taxawal Yewwi Askan Wi avant loolu parce que jàppoon nañ ne y une urgence Euh, pour qu'on se retrouve autour de l'essentiel ne serait-ce pour protéger les acquis démocratiques maanaam ñu sàmm suñu démocratie mhm. euh, xeex lépp loo xam ne transparence u processus électoral la ak injustice bi nga xam ne jaay doole bi nga xam ne am na ci réew mi xam nga yooyu c'est des c'est des euh, yoo xamante ne nii dafa traverser dafa transcender ay clivage politique c'est important ñi ñi xam ñu ànd ci ñu jàpp ne c'est processus bu ñu mën a teg ngir empêcher président Macky Sall mu jéem a intenter troisième candidature wala mu jéem a def forcing wala tànnal ñu ki ñuy jiite mais dans la paix te nuñ ko mën a defee mooy fexe ba wàññi dooleem ci local yi législative yi ñu jël assemblée bi et on règle les problèmes l'assemblée va jouer son vrai rôle c'était ça le projet mm-hmm. ba indi looloo indi sax intercoalition parce que tey bu ñu defoon intercoalition boobu noonu jàpp naa ni euh, troisième candidature bi moom dañ ko doon plier mais lii nekk di xew candidat yi bi kii bokk kii du bokk yooyu yëpp modification code électoral bi rek doyoon pour mu nekk benn code électoral bu sérieux boo xam ne du du pour xeex diw wala pour avantage diw yooyu yëpp dañ ko bëggoon a def ak l'assemblée malheureusement ça n'a pas marché pour x raisons taxaw Sénégal décidé jël <coughs> yoonu boppam wax fa dëgg yàlla nag mënuñ ko koo bañal hmm. kon divorce bi acté na kon mais ça c'était c'est évident mënuñ ko ko bañal mu jël mu jël euh, yoonu boppam ne moom nii la gisee ah ñun ñu continuer ci lancé bi ñu nekkoon dans le cadre de Yewwi mhm. n'est-ce pas mhm. dans euh, après tout ça pour man problème mënul am parce que après le reste sénégalais yi xam nga nag réew mi loolu dinaa ci ñëw sax pour euh, rebondir ci li Oustaz Mbacké wax ak Oustaz Doucouré mhm. kenn mënatul nax sénégalais ñoom ñooy fair la part de choses maanaam ñoom ñooy ñoo xàmmee janj joor ñun jàpp nañ ne li ñu waroon def yëpp def nañ ko te kiy waxal yàlla xam ne on a été trop généreux même maanaam dañoo joxe ba joxe suñu wàll. seen diggante ak taxaw. ñëpp du taxawu kese. Mm. ci ban fan. effectivement. mais ay nit ñoo taxaw ne bu Ousmane boo ñëwee ma gañe ñoo njëkk a taxaw ne li nga ñëwul moo tax gañew ma ne boo ñëwee ma gañe mm. tey nag bu la neexee ñu fëgg seen dënn ah bon Ousmane Sonko bàyyi campagne am benn jour la campagne dëkkam dem ji leen campagne am donc Dakar Ndakaaru ak Ndar mën partout du question je du du ñi fi nekk ñëpp du Dakar Ndar même les candidats de Pastef kenn xamu leen c'est parce que président Ousmane Sonko daf ci jouer rôle bu important te ñoom ñoo ko nangu ñoo ko ko nangul dañuy dem fenn Ousmane ne non tey du ma wax wala duma ma génn ñu ne ko bu ñu sonal fii ñi ñi yaa leen fi indi. Hmm. leader yi may wax ni ñoo ko doon wax loolu. wallaahi ñoom Barthélémy Dias wala. ñoom ñëpp sans exception wallaahi azim. Hmm. Barthélémy bokk ci ñëpp. borom dëkk bi à partir de sa moment. ah Bart borom dëkk bi. ñëpp laa wax. Bart de moom moom Dakar dañ ko dañ ko nangul. te ba yi may waxee ak yow nangul nañ ko de. Mm-hmm. mais politique c' est normal. yow déggoo fenn fu ne moo tax mu xam nga lu ma bëgg a wax mais ay doomu ndey la woon nag. ay ba léegi ay moom moom euh, xam ay doomu ndey la ñu dama ne. déggoo fenn yoon loolu. fi ah leen ma dafa am léegi ne daara jee ngi fi. benn waay nekk ci commentaire yi naan waa tu pouvais inviter un jeune mm-hmm. suba day ñëwaat donc am na yoo xam ne xajul Sénégal. non mm-hmm. mooy. man ku ci nekk wax dëgg yàlla mën nga mën nga mën nga assumer jël sa position assumé ko tey nag dañ la koy nangul mhm. man looloo mës a nekk sama position moo mës a nekk suñu position mhm. bi fi Idriss Seck jëlee décision fekki Macky euh, président Ousmane Sonko daf ñu woon nañu bu leen bu leen ci wax suñu yoon nekku ci c'est son choix parce que dafa am yoo xam ne soo ko defee limite yi ñu rend service ndax la nga yoroon ak sa néew booy dem doo ko yóbbaale c'est pas du transfert automatique mhm. moo tax ñu jàpp ne ñun c'est pas un problème que ñu décider dem. Mhm. léegi nag ñun on a maintenu on est resté sur notre bonhomme de chemin di dem di dem di dem ba yàlla may ñu lu mu mhm. ba yàlla jox ñu caq bi c'est normal que ñi nekk ci ginnaaw di jéem a créer dualité ak ñun pour exister c'est de bonne guerre dama leen koy nangul parce que ñun on a choisi de créer la dualité la bipolarisation avec Macky Sall donc man mënuma bañ. qu'on se retrouve avec des opposants de à, à l'opposant kon loolu nga leen ñoom. mais yéen bokk lu ngeen bëgg ah. <laughs> non moo tax ma ne la c'est de xam nga léegi ñoom attaqué tuñu parti au pouvoir ñun la ñuy attaqué ñu ci bëri ci homme politique. mais vous représentez une réelle menace. pour la sant yàlla nag mooy dafa mel ni dañoo jël pouvoir te te te élection ji amagul. <laughs> Pape tolluwaayu. moo tax élection bi la rek. ah ah mais bien sûr. dañ ne kay nangul léegi nag ñun ñooy xam ni wax fa dëgg yàlla. comme niñ ko waxee ci meeting bi passé ak APES borom caq da wolof daf ne borom caq du xeex ak borom baatu neen man ma jël micro bi ne leen borom caq du xeex ak boroom yaramu neen <laughs> mais ku ne takk nga caq ah ah borom Dakar laa lay wax de fi ne ku ne jàpp nga ne takk nga cax waaw ku ne jàpp nga ne takk nga cax ah. waaw kay waaw kay waaye du ku ne takk nga cax waaw mais comme jàpp rek ci ah. <laughs> ku ne li nga jàpp rek lañ nga jàpp nga jàpp tege ñi ah. teg ñi ñi ñi teg course bi nekk foofu arrivé bi nekk foofu ngay daw nga jiitu di walbatiku di xët ki topp sa ginnaaw moom kay moo lay xët mais yéen it seen taalibe yi seen taalibe yi sonko baa dara rek dañuy wax de sonko baa dara rek déedéet foofu laa lay tontoo nag <laughs> xam nga tamit sénégalais yi yàlla may na leen xel xam nañu lan mooy voix autorisée voix officielle d'un parti politique ak lu ko nekkul kenn mësul toog fii ci Sénégal mu ne mës na gis un leader de fu wax benn wax bu ñaaw envers qui que ce soit et pourtant amut lu ñu waxalut eh wax ngeen fi nit dafa fen a fen ba ñuul. xaaral. ak waa Aar Sénégal. xaaral loolu wax ju ñaaw la ndànk rek. de Aar Sénégal mosuñu leen wax lu ñaaw xanaa wax ne c'est des opposants à l'opposition. Mhm. waaw loolu du tuuma xam nga non déglul ma wax la c'est pas tuuma te lañ doon wax yàlla da koo def tey lañ gën a nekk opposant à l'opposition bi ñu jamee may mën a nduur fay la moo xew. docteur Abdourahmane Diouf animu. lan moo bu ñu jam mais non déggoo li ma la wax opposant à l'opposition. Mm. as mooy kam moo kam moo kam moo jiite woon liste bi. as mooy Diomaye waaw non defal ndànk kam moo jiite woon liste bi. <laughs> Thierno Alassane Sall. bi ñu jamee. Maimouna Ndour Faye lan la wax. lu mu wax di nga ko wax si. lu mu wax laaj na ah, lan la bind lu bind. te yow yaay wax. <laughs> tey moom yaay wax yaay invité. Eh, dimbale man xaw ma lu mu bind lu mu bind. boo xoolee li mu bind. waxul ñeneen moom ñeneen. dañu orienté yëf yi ci Pastef ba ne sax. Mhm. waruñ ñu amnistier. Mhm. ndax ñoo. ñun ñoo fi taal fii ñoo fi taali bis comme ñoom daal dañoo def enquête ba clôturer enquete ba def sax ba ba jouer sax rôle légiste daat ne fi ñu ko jam pour rey la fii nangam tu vois ce dire tey gis nga gis nga li feeñ li am solo ba am solo mooy man bañu ma ñoom wax dëgg yàlla ñu gis ne ñun kat jiitu nañ sànni karawaas ga ñu ñuy dabu bëgg ñoo tardeel di ñu kobas di ñu xët pour ñu wàññeeku di xeex ak ñoom mm. loolu lañ nangu te gis nga loolu tànk que yaa ngi koy bañ dañuy gën a ñoom yéegal niveau bi ça c'est important. Mhm. moo tax ma ne lu jëm nag ci wàllu subhanallah lu jëm ci wàllu li ñuy wax naan euh, euh, yenn wax yu ñaaw yeeg nangam foofu laa doon wax parce que c'est important tamit. Mhm. dëgg yàlla euh, am na ñu bari ñoo xam ne dañuy nekk ci réseaux sociaux yi nee nañ dañuy jàppal tànk Pastef. amu ci kenn nag koo xam ni am na une fonction officielle ci Pastef ah. c'est important loolu jar naa leeral limite parfois am na si ñoo xam ne dañuy wax loo xam ne dañuy yàqal defaraluñu mhm. mm. Pastef génn ci communiqué génne waat ci communiqué ngeen ànd nag loolu mooy problème non defal ndànk déedéet mm. déedéet Pastef def ci génn communiqué génne waat ci communiqué président Ousmane Sonko dem Touba ziar sëñ Muntaxa génn ñi laaj ko mu ne ñiy def loolu bokkuñ ci sama njaboot ça c'est important te moo ne dans les autres camps des voix autorisées ñooy taxaw di saaga les ministres lan lañu waxul ci président Ousmane Sonko ministre toogul ci télé naan day sëy day sëy ginnaaw day nangam Moustapha Diakhaté lan la waxul mën naa ci cité ñu dul ay kilifa ay kilifa diine yi toog ci télé yi di wax du kenn xamut bon kilifa diine sax c'est relatif parce que ñooñu mënu ma leen considérer comme comme kilifa diine que mm-hmm. parce que kilifa diine mënul waxee nenn ni mm-hmm. ay mag a koy def débat bi amatul camp sax léegi ñëpp a koy def <laughs> ñun ay ndaw mais wax dëgg yàlla du Basiru du Biram du El Malick du Basiru du Biram du El Malick mais dafa leeral ah? lu am solo dañu dañu ñu koy def ñu ci ñoom maanaam cest à bu nit ne bu nit jëlee photo Ousmane Sonko def ko ci profilam génn jël photo Ousmane Sonko teg ci ginnaawam di tudd Ousmane Sonko di tudd nit di saaga yow munoo jàpp lu dul kii ci Ousmane njaboot Ousmane Sonko mais nag li Ousmane Sonko li mu wax ni moo ñoom leeral nañu ni ñii di ko def bokkuñ ci ñun loolu dafa mat sénégalais am na ñoo xam ne sax fës na ñi ñi xam leen xam ne nit ki noppam la mhm. ñuy ñu ñu faral Ousmane Sonko mhm. il faut dire les choses mais xëy na ñoom ils ont leur style de faire mais ñun adopté wuñu ko c'est-à-dire que dafa am yoo xam ne man personnellement mënuma adopté wala ma d'accord ak foo man di bokk. baral leen kat bi waaye dama bëgg dama bëgg dama bëgg lafu. dama bëgg a laf ki saaga kilifa diine leen parce que damaa assumé ne damaa bokk ci tarixa waaw damay waaj a laf de. Mhm. ñaari waxtu avant may ñëw fii. Mhm. accroché ak sëñ du lii sama wasila la mm-hmm. du ma nangu kuy du ma nangu ko leen di saaga sama man la maa ngi koy siyaar yaa ngi comprendre partir de sa moment li am solo mooy est moo tax te nit ñi xàmmee nañ ko léegi dangay ngay mm-hmm. ñu bëri même patriote yi di ko posté mm-hmm. ah kii wax na lii déedéet déglu leen euh, El Malick Ndiaye xaar leen ba El Malick Ndiaye wax wala xaar leen ba page Ousmane Sonko posté wala xaar leen parce que xam nañu le voies autorisées ku mu neex na nga jóg wax du la neex mais li am solo mooy les voix autorisées du parti Pastef wax fa dëgg yàlla kenn mësu leen dégg ñu yëkkati lu ñaaw sax teg ci. Mhm. teg ci seen adversaire sax waxuma laa nag ay kilifa ak yu ni mel ça c' est important ñu def ko. maintenant c' est normal que ñoom ils voulaient nu peindre comme des hommes violents comme ñu reew comme ñu nangam yàlla contraire bi la wone parce que saa nga yeeg yu ci bëree bëree bëri yu ñuy wax yàllaa ngi leen di feeñal ba bërki dem boo njaay <laughs> ci ay kilifa ci ñoom donc de ce moment. Euh, pour man sénégalais yi xàmmee nañ ko te lii wane ne xàmmee nañ ko malgré tout ça. yow yi ngay def sama xel bi ay position yi ngay def sama xel bi bugguma ko comprendre quoi. <laughs> astafurlah malgré li sénégalais yi di wax yëpp. malgré astafurlah malgré li ñoom li ñu wax yëpp. parce que ku mel ni Hannibal Djim ak équipe am dañu def enquête ñu déceler mais des milliers de faux profils yoo xam ne ñoom te loolu sax avant ñoom sax am na une société suisse ou quelque chose comme ça bu ko def enquête. bi wane ne dañu engagé woon des milliers de faux profils parce que y a des cabinets qui font ça. Mhm. jox leen ay photo euh, Ousmane Sonko nangam nangam ñii ñu tudde leen ay tur ay sant Joola et cetera ñii saaga di dugg di commenter di et parce que ils étaient dans la diabolisation c'est mhm. normal. Mhm. mais malgré li ñu def yëpp lu tax sénégalais y continuer di ñu jox ko. c'est parce que xame nañ buñ bojj ak buñ boxam. très bien je pense non s'il te plaît am na question vous avez y' a Eva qui est là elle n'a pas encore posé. foog ngeen may posé mu wax ah. s'il vous plaît Bibachon là. Bibachon. voilà arrêtez nag arrêtez. man j'ai tellement de questions. je ne voulais pas être désagréable. parce que j'ai voulu laisser les journalistes profiter. trop c'est ah trop j'ai beaucoup de questions aussi j'ai pas voulu. y en a marre de vous trois. on va vous taper demain. voilà Eva si tu as une question. non ah, j'aurais pas dit comme ça mais tu vas poser une question. du bleu sur du bleu avec du bleu à la figure. merci. Diba <laughs> ak aussi Diba. tu poses la question après évasion su ngeen amee analyse aussi lu ngeen bëgg def mën ngeen ko def après euh, El Malick va vous répondre ñu yëkkati jotaay bi comme ça ma mayee samay kàddu man. El Malick tontu wu ba léegi sama. tontu na la tontu na la. yow xalifa mooy Bart Bart mooy xalifa. très bien. <laughs> <laughs>